concours sañse jeex saison 1 B, techna. bonsoir et bienvenue au théâtre de verdure de Pikine c'est ce cadre convivial que Pikini Production a choisi pour honorer les gagnants du concours sañse sur la scène TV. Ah, ah, ah. madame si meku sangu ba set ya? waaw woddoo sarbet taxaw jàkkaarloog moom eh, baax mu ne futeen sarbet bi nga ne dong nama dong neen concours tey sa nag lañ wax ñoko ko ndo won woon allah kon buñ koy clôturer tay day jaaru dadaa ñew na bu ñëw Aziz Dabala ñew ndol ñew ñew delo bu mu ca mboy mboy ga ndax ku ne xamna ni bo ne dikon rek da dadaa na ne sañse suñu teewaay fii mooy bés bu Pikine woote te comme niñ ko xamee Pikine rek eh, yàlla moo dogal sunu diggante solidarité képp ku xewle si ñun rek ñun ñëpp ñoo boole suñu doole ñoo gunge la mais ñoo fi aussi si pertinance su activité bi nga xam moo ñu réunir tey ci concours bi nga xam te ni si initiative Pikine production la ak sunu grand frère Aliou Ndiaye yàlla dogal ñu bokk commune bokk koñ dafa am benn enquête boo am solo bu état du Sénégal def buy wane ne koom-koomu tailleurs yi ak couturiers yi ñoom ñoo ci ëpp doole loolu nag nekk na loo xam ne bàyyiwuñ ko woon xel su ñu amee nag ay doomu réew mi mel ni Aliou Ndiaye comprendre loolu di accompagner tailleurs ak couturiers yi loolu dafa mel ni wokk bu dee gestu la. yàlla nañu am suñu télé bopp fii loolu lay ñaan Pikine yi nekk télé ak yeneen télé ñuy promouvoir les nombreux talents culturels parce que Pikine en réalité.

Pamaase sa bës Pamaase ana waa Pamaase ay ay Tuubaa ba la tuddee yow leen rek moo ma jaaxal burul ay nii dafay karaw gi